Aïssatou Gaye ci nekk madame Fall la nekk fële ca euh, amoo mbaa jàmm ngeen astu men xuma ci Dakar la nekk ab Bey nekk ci Touba Ousmane Sari nekk ci Kayar Ibrahima Diop nekk ci Raax salaamun Ousseynou Gueye ci raw la nekk Alimatu Yadd nekk fële ca Tiwaawoon euh, tabarkalla euh, madame Balla Sall Assane Dieye nekk fële ca Géejawaay kii mi ngi tudd Badiane Ngaya ma Badiane ngi ci Dakar waaye fële ca gaa new la dëkk Ousseynou gay nekk ci conseil mairie Gandon Salamun ahluha ahluk Mor Seck Jogo la nekk Omar Dramé nekk fële ca Saloum ma Mako nekk ca Ngaaxam 1 bi ardin ci Malika la nekk Malika Place Aïssatou Ba nekk fële ca Grand Mbaaw wala Petit Mbaaw Mor Ndiaye nekk ci Noto lil haqq fiha shahid Yacine Faye Padois la nekk maam xewe Ndiaye ma nga Mbay Fall Sadio Ka nekk ca kër Massar. salaamun salaamun Babacar Fall Mboro salaamun Adja Diago Sow Kër Massar salaamun Mbay Gajaga ci Noto salaamun Mortala Sarr nekk fële ca Mbàkke Bawol salaamun Njogu Géey ci Caaro yi Njogu Géey tabaarkalla oto Njogu Géey oto yëpp sal sàll leen tudd oto numéro un deux trois yàlla na quatre ba cinq Cheikh Gaay Cheikh Gaay ma nga fële nekk ci université Cheikh waaw waaw Doro Sylla ci salaamun am Sow ci Amérique salaamun Pape Mbeng Babacar Mbeng ci UNESCO salaamun ci sunu doom yi raar la bokk ba kenn déggatu ko gisatuñu ko xanaa ci whatsapp bi léegi Ibrahima Niang ci Vigo la nekk Cheikh Mahfous Mbuub nekk ci Italie Pape Gallo Niang nekk ca itali moom tam Baye Ash al mamlakatul arabi saoudia salaamun Njoole Njaay nekk ci ca Italie soxna Xaji Nger ci Italie la nekk Mariam Diène nekk ci France Roger Diouf nekk ci France moom tam Ousmane Maron ci Gambie la nekk Nogay Njaay ci amerik la nekk Marème jalo nekk ci France Moustapha Soumaré nekk ci Italie moom tam Mor Diop mu ngi fële ca Brésil Moustapha Sy la nekk ci Paris Mbàkke si la ca France la nekk kon beneen Mbàkke si la nga ko xëy na mooy Mbàkke si la numéro 2 <laughs> Ousmane Mbow ci Espagne la nekk Mouhamadou Mansour mu ngi fële ca Brésil moom tam Ibrahima nekk ci Guédi moon Monte Grappa njaatige salaamun Pape Mor Diaw ma ca Japon Cheikh Mbacke Ndoy ci Espagne la nekk Mamor Ndiaye nekk fële ci Brésil moom tam Mor Thiam ci Côte d'Ivoire la nekk Alioune Ba nekk fële ci Angleterre Babacar Ngom al Ba nekk fële ci Guédi Abdoul Karim Thiaw ci Brésil la nekk Khadim Diop nekk ci Espagne Aminata Konaté ci almaañ la nekk siini Mbuub nekk ci itali moom tam Bekaay Seen salaamun Achma Ngom Espagne la nekk tabarkalla mu ngi ànd ak ñun jotaay bi salaamun ki ci mujj mooy Xadi Mbay ma nga fële ca France Xadi Mbay salaamun kon nag yéen ñëpp salaamun ci biir réew mi salaamun ci bitim réew 22 heures jot na ba teg fukk juróom fukki simili ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo jaar ci xëy na ci sunu téléphone ci whatsapp wala ñoom seen yooyu ñoom ñooy salaamun bitim réew ak salaamun ci biir réew mi xam naa bu ñëw ci téléphone yi nag daal di ànd ñi ànd ak ñoom ci suñu téléphone daal di jël si ci xaaji Mbàkke si la ne ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu oustaz kon nag salaamun xaaji Mbàkke jërëjëf oustaz salaamun salaamaaleykum bég nañ lool ci nuyoo yu am solo yooyu ak yu am solo yooyu nga def ñoom tam ñu ngi lay nuyu ñoom ñëpp macha allah bu a baax defe naa gars yi namoon nañ lool salaamun waaw moom de mu ngi noonu rek waaw man sax lay dama lay lool oustaz xam naa gars yi daal xam naa bu dee ni ma lay namme lañ lay namme moom namm gi dana jéggi day moom mi di laa lay namme moonte waaw kon xam naa loolu ay nammante la kon <laughs> macha allah jërëjëf jërëjëf na ngeen def ak coono yi. waaw ñoo ngi sonn rek. Mhm. waaw fii Kabadin. fii Kabadin waaw. di di kii rek. di kii rek. <laughs> ndeysaan moom te loo sonn sonn kat. waaw bëgg fee nekk. dëgg la dëgg la waaw ndeysaan. loo sonn sonn rek bëgg fee nekk. Mhm. waaye daal noo ngi sonn mhm. macha allah dama ko ñëw. Eh, macha allah di yow tam di ñu jaajëfal ñu la jaajëfal noonu. jërëjëf jërëjëf ndax coono bi mi ngi fii mu ngi foofu. Ah, waaw waaw noonu am na solo. tubaarkàlla tubaarkàlla naka daara ja waa daara ji day ña nga ca mhm. eh, xal ya bër nanu mhm. dong ya tari tari nanu mhm. eh, xam naa fi ay fan gone ya del siwaat ñu continué waat njàng ma waaw di jàppal da yeneen yi ci des ak waajal leen ñoom tam ci eh, seeni tareek yu nu demee am na solo waaw nga ca daal macha allah di góorgóorlu bu yokkee nu jël am na solo. Mhm. am na solo bu yokkee ñu jël mi ngi noonu kon daara ji ñu ngi ci bër fi mu ne. ñu ngi ci bër fi mu ne. ndeysaan. xanaa wax rek ne comme euh, ni ma koy waxee saa su nekk. waaw. Euh, mbokk mu baax a baax mu jóge fële ca France. Mhm. tudd Khalil Maar. Khalil Maar. doon fekk ci kër ga léegi. Mhm. andil ñu sër ci bu ñuy tuddee. Euh, ordinateur. ordinateur aha waaw. ordinateur bu rafet rafet. ordinateur bu rafet rafet. macha allah daal tubaarkàlla. suñu xalil maar jërëjëf. waaw ñu ngi koy bëgg baax a baax. loolu moom Doro Sylla ak suñu xalilu kan ña ca pare bëgg nañ ci. waaw suñu <laughs> loolu mu indi baax lool ci liggéey bi. baax lool ci liggéey bi. waaye itam mbokk ma leen nekk ca Kër Madaro. Mhm. ñu koy wax euh, Moussa Gassama. Mhm, tafsir ndeysaan. daf ñu moom tam may téere ba am solo. Mhm. kitaabu taalib rabbaani. ala risalati ibnu zeydin al xayrawaani mu nekk arba mujaldaat mhm. yoo xam ne ki ko talif mooy al alaama mhm. ali ibnu xalaf mhm. al manofi al maliki al misri macha allah waaw téere la ba am solo macha allah mu baaxee nu ko waaye mbokk mi itam baaxee nu beneen téere al ixwaanu fillah xulaamu rasul moo ko moo ko bind defanaa naa da nga dëgg turam. léeg-léeg waaw waaw ndeysaan. mbokk mu ñu wax uh, Alioune Diouf moo nu ko baaxee. macha allah ma nga dëkk ci Dakar. macha allah loolu ay cadeau ay cadeau yu am solo la. waaw macha allah itam daa dellu ci liggéey bi rek. day dellu ci liggéey bi. tubaarkàlla ñoo ngi ciy bëgg macha jërëjëf jërëjëf uh, tubaarkàlla. jërëjëf sëñ Diouf ñu ngi koy jaajëfal mook tafsir Moussa Gassama moomu ak sëñ Xalilu Laay Maar moomu. ci uh, addiye yu am solo yi nga xam ne. bi France mu ngi doon jéem a jokkoo ak yow sax. waaw dafa xawoon a xat xam naa lool la ah, wax na ko ah, jërëjëf ñu ngi koy nuyu te di ko bégee alhamdulilah na naka réew mi réew mi de suñ mbàkki mi ngi riir <laughs> mi ngi riir daa mel na de te hmm. defe boo fàttali ko daana la wax ne hmm. balaa jóg ci riir ndeysaan hmm. balaa jóg ci riir waaw dañu yàgg loolu maanaam riir mi kon lu koy waral ba nga xam ne fasi maanaam daal noppeeguñ ngir riir mi jeex waaw comme noppeeguñu ngir liggéey du noppi ngir riir mi jeex tey ndax wax moom hmm. wax day bari mm-hmm. liggéey néew mm-hmm. mba liggéey bari wax néew wax néew maanaam ki ne ci liggéey du tal a wax waaye kii toppi wax it boo moytu dootu tal liggéey boo jàngee wax sulatu minal awalin wa xalilun minal axirin jeex na mm-hmm. moom daal saa bu wax bëree mm. liggéey néew mm. saa bu liggéey bëree wax néew tey loolu ñoo bëree ndoon loolu kiimaan la kon nag ñun loolu moom yàgg na ci ñun dafa mel ne kon daal wax ji moo ëpp jëf ji. waaw rek waaye nag oustaz itam xam naa ne danaa ci ñëw ci lu yaatu euh, ni nga xamante ne noonu la wax ji baree ci penc mi nekk loo xamante ne fi mu ne moom lëmbaaji na ko <laughs> na réew mi ak ak wax ju baree baree bari waaye balay loolu ma def ci jàmmante bi tuuti jaar fële ca conseil économique door a egsi naka mu ak seen njiit lu bees waaw dalal dalal nañ ko uh-huh. dalal nañ suñu njiit lu bees macha allah ne ko léegi yaa ngi noonu. Mhm. Euh, groupe bi fi nekkoon a ngi nii. Mhm. ñi nga fi mën a àndal pour liggéey ñëpp a ngi nii. Mhm. mu ne li mu bëgg mooy ànd ak ñi fi nekkoon ñëpp. pour ndax équipe bi leen yitteel rek mooy liggéey. dëgg la. ngir fas yéene ànd ak moom nab nabi waat. encore ñun tam ñu ne ko ci kon nag ñun tam ñoo ngi lay wax suwaay bi mu ni ñu ànd ak yow nab nabi nun tam. ndeysaan nañ doon nab Taal euh, Aminata Taal. macha mhm. allah Aminata moo dem Aminata mhm. waaw ndeysaan waaw yéen ay lañ leen booleel. waaw mu <laughs> eh, mel ne moom Taala dem dem Touré ñëw. kii moom sant wi neexut waaye xam naa ne jàmbaar la <laughs> ab Touré Touré moom tubaarkal la. wallaay ndeysaan. <laughs> jërëjëf oustaz ñoo ngi la ciy jaajëfal bu baax te di ko rafetlu bala maa ñëw ci ci eh, xibaari daara ji tax laay tàmbali waaye bala maa ñëw ci li mujj te gën a tàng waaye daa xaw a niin ndax pétrole la mm-hmm. ak coowam waaye balay loolu ma jaar ci korité gi nga xamante ne boobaa léegi ñi ngi door a daje mm-hmm. eh, dundati nañ ko Sénégal niñ ko baaxoo dunde ci wuute yi mm-hmm. waaye nag bi mu jàllee itam jàllati na ci jàmm eh, xutba yeeg yi nga xam ne moo fi jaar yëpp laa bëgg nga indil ma ci tam njàngat noo ko dundee waaw wuute gi de dañoo dañoo pareegul pour jële ko fi wuute gi mm. dañoo pareegul pour jële ko ndax dëkk bee nga nekk yaari la am. Mhm. njaareem ak jurbel ak jurbel waaw dëgg la de waaye njaareem ay jurbel jurbelee njaareem. jeex na hmm. ñoo tam nañ si am ñaari masala. Mhm. tawxiidul mataali. Mhm. ixtilaaful mataali. te ñaar bu yàggee day mu jàgg. kii dana wax ni gis na weer yi kenn ne ko gisoo ko. ndax su ne ko gisu su ne gisu ko. dafa am wujjante ci am. waaw daanaka xaw naa xew ci bi ñu génn. mbooloo me ne gis nan ñu ne gisu leen léegi nag ñu ñu ñu ñurumtoo yooyu li ko fi jël daal mooy ñu jékki-jékki boole ñaari mbooloo yi def ko mi menn mbooloo keneen duutu fi déclaré ci dara loolu nag yittee koy def kilifaa koy def état koy def mais nun mënuñu ko dëgg la te li fi jógu fi nag balaa deux mille quatre-vingt ci nii rek la ñu nekk ci nii rek la ñu nekk jàppal bàyyi rek coow li ne maanaam coow li ne kor daal muy gën di jafe nag day gën di jafe ndax day mu jàgg commission bi du wéelu bee mhm. commission bi du wéelu bi mhm. ba ca teg mooy kenn ku ci nekk da nga def ay commentaire pour weddi sa morom mhm. muy gën di lëj rek dëgg la dëgg la ah, dëgg la muy gën di lëj rek oustaz nekk kon benn pëccëxoo boo xam ne du neex euh, jubbanti ah, waaw waaye itam noonu itam lañ ci ñëwee ci bis bi nga xam ne moo jàll kon di bisu korité bi mm-hmm. xutba yi nga xamante ne am na euh, nga déglu ko mu mel ne bu njëkk dañ daan wax naan xutba yi de léeg mu sori nit ñi ndax dañu bàyyi ba ca bisu it ba ñuy fàttali muddum ko rek wala ñuy waxtaane sax njariñul koor te fekk ñu ngi wari mm-hmm. noo jàngate xutba yi ren waaw dama wax toujours ne mm. média yi dañ ci joué benn ndax bu njëkk dañuy tegale xutba yi rek booba rajo Sénégal moo fi nekk nga tàmbali xutba di déglu ba min wi daanaka léegi nag imaam bi day xutba léegi ñu tegal la ko léegi léegi nag bu la ko tegalee léegi su fekkee bi nga xutba bi dafa nekk hors sujet nit ñi dañ koy xam moo tax gaañ gaañ yi di di di wokk fii xasan ñu ngi koy wokk si ñu ngi ñëw ci actualité yi te loolu nag mooy moo tax xutba bi am njëriñ wax ak nit ñi fi ñu wax leen fi ñu jëm wax leen liñ ci jëlee wax leen luy defar jikko wax leen luy defar pénc mi yooyu mooy xutba yi te itam loolu day am solo ndax baali salaa salaam di génn asaka mu dum koor defoon ko muy xutba it loolu ci jubloon ba ñëpp xam ko bu ñëwee benn mu wax leneen benn mu wax leneen benn mu wax leneen donc xutba yi macha allah am na ci bëree bëri yoo xam ne euh, ñëw nañ ci actualité yi wax nañ ci fi ñu ci war a wax bu dee ci politique wax nañ ca bu dee ci suuf suñu coow fu ñu toll wax nañ ca. Mhm. bu dee ci euh, rey gi ci penc mi. wax nañ ci wax nañ ci. Mhm. waaw picc xoog ak ñoom seen yooyu. Mhm. ndax xam nga ne penc mi li ñuy li ciy dee fi ne bari na. accident yi ña ngay rey fële. nit yaa ngi rendee ka jami paak. nit ñi nag wax nañ ci macha allah waaw deret ji penc mi bari na lool te loolu lépp wax nañ ci. tabaarkalla tabaarkalla macha allah. naan nag foofu laa ji mën sama xut ba man. waaw waaw ci ban angle. Hmm, angle angle rek rey gu bari lu xew. Hmm. ak est-ce que ñun. dañuy def ku ñu rey rek ñu ubbi enquête rek. Hmm. enquête yi moom kañ la ñuy am résultat am. dëgg la enquête yi bari na lool ubbi nañu enquête. rek ubbi nañu enquête rek. <laughs> te surtout Baqara mu ubbi baax. Ah, Isbaw Baqara. Hmm. dafa am finalité. Ah, dafa am fu mu jeex nag. dafa am fu mu jeex nag. ñu xam ne ki ñu doon seet kii la. Hmm, waaye ñun enquête bi duñ am résultat. doy na waar de. yooyu daal macha allah. dana waar de. Mhm. muy lu am solo oustaz loo xam ne jaar na fii eh, ci korite gi ñu déglu ci itam taxawaay yi nga xam ne am na ci yëpp ak yi nga xam ne moo ci topp. Mhm. waaye lu jiitu loolu ca fan yooya rek ci la nag eh, reportage boobu nga xamante ne bokk na ci li indi coow li ñu doon junj léegi ci penc mi. Mhm. ñëw sofu ci wax ji nga xam ne moo fi amoon. ndax oustaz ab diir a ngi nii ñuy wax naan réew mi dafa am pétrole. Euh, wala dafa am pétrole ak gaz léegi nag loolu indi nag ñu ne ca contrat yaak euh, mbir ma ni lañ koy génneek mi milliards yi di ci tudd lim yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri ñu am nag koo xamante ne daal laxas nañ ci yu bëree bëri ci am ndoddam ndax euh, ni mbir yi tëddee daan nañ dégg ñi nga xam ne ñooy opposé wu fii ci réew mi di ci wax ak ñenn ci ay journaliste mhm. waaye nag bitim réew dugg ci télé boobu di BBC indi ci nag reportage boo xamante ne xaw naa lëmbaaji réew mi mhm. oustaz loolu man njàngat la ci daara ji di def jërëjëf daara ji bu dee moom. Hmm. soo seetloo bi alxuraan di jàngale koor. Hmm. bi mu jeexalee. laay jàll njëkk a wax. mooy wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil. Hmm. waaw loolu la ci teg. loolu la ci teg. kon ku jóge ci koor daa war na mokk. alal alal alal sa alal. bu ko lekk ci tappale. bu fekkee li ngay def lu leer la. dangay ñëw ni lii laay def. Mm-hmm. waaye gis nga sëñ Mbàkke moom jiiñante mm. ak moom la ak du moom mm. boo ci duggut kenn du moom la ak du moom la ginnaaw dañ la sori sori rek mm-hmm. boo ci duggee ci dugg yu leer na leer ñëpp ni danga cee dugg dugg bu leer mm-hmm. waaye bu ñu ci njaxas jàppal bàyyi gii fii rek la ñu jëmee te itam euh, nit lislaam da ko doon yar ba intérêt péncam daf koy gënal yi boppam. gis nga junniy milliards nit mënu koo lekk. déedéet. junniy milliards. bari na nit mënu ko lekk. man de boobu xaalis daa bari. waaw. Mhm. nit moom. Mhm. ak lekkam ba bari ñaari milliards xay na. Mhm. booy fukk. <laughs> ñaar fukk. ñun fukk. juróom fukk. ah. ah? tuuti de. du tuuti. waaw ah, loo ci man dégg du tuuti moom. penc mi nag. ñaaray am. saa bu ñu ne pétrole feeñ na hmm. saa bu ñu ne gaz feeñ na yëgal ne nit ñi tam danañu fexe fenqale sikkim yi di tànq di yóbbu hmm. loolu tam réew yëpp ci war a yeewu waaw dëgg la bu ko defee ñi ñi xam nañ wax hmm. ñu xamut noppi waaw ñi xam nañ wax ñi xamul noppi ñi xam nañ wax ñi xamul nañ noppi ñi xam bu ñu noppee fa muy jëm du baax ñu xamut bu ñu dee wax fa muy jëm du baax dëgg la dëgg la ku sookee wax ji nag ba xam ñëpp di wax hmm. yow tam yaa war a dellu ginnaaw bu jaree tekki say ndombay tànk nga teg ko hmm. bu jaree porté plainte ña ko def nga def ko hmm. boo ci dawee res rek indi ñu problème ñu ñëpp dëgg la du dëgg su ko defee fañ koy attee ña ko wax ñun am ñu ay journaliste fii ci réew mi. Mhm. ñoom tam. Mhm. ñu gëstu ba ne ñu lii ñuy wax dëgg la. Mhm. ñu gëstu ba ñu lii ñuy wax du dëgg. ñu noppalu. waaw kon journaliste yi ñoom itam am nañ ci wàll. bu mag mag sax wàllu def ci ay investigation yu xóot. Euh, yoo xamante ni ko bitim réew defee defe naa ñoom war nañoo am liberté. man koo defee noonu bu mag sax lañ ci am. ndax nangam am na. Hmm. journaliste nga yow da ngay gëstoo ko laaj. waaye hmm. solo saw dal. gars yi nag dañuy wax lu baree bari ne ñu ëpp ci ñi nga xam ne ñoo doon taxawee loolu bu ñu yëkkatee kàddu mi ne ñii de dañoo far. Euh, ñi ñu tuumaal lañ gën a jege ci ñi nga xamante ne ñooy population. loolu sunum penc dana koy def. Hmm. day santaas nit ba nga xam ne duutoo ñeme duutoo ñeme wax. dëgg la ndax fi ne bala ñoo àtte dara nga dégg nit ñi wax ci. soo waxee lee ñu ne waxoon nañ la ko. soo xeelee lee ñu ne waxoon nañ la ko. Mm-hmm. donc nit ki mooy mooy mooy seen diggante mm-hmm. ak boromam. ak traayu ba meelam. Mm-hmm. ak métier mi yor. métier mu noobal la. wala xad wasalna lahumul qawla. wallaay laxaalum yatafakkaruun ginnaaw métier mu noobal la nag. doo ci doo ci bañ ku la ci xas. mbaa ku la ci yedd. li nga war a wax. wax ko. gëstul ba xam ne lii nii la nga ne hee nii la kat. wala gëstu ba du noonu nga ne hee. du noonu. jàmm na ñooy. jàmm na mu jeex am na solo. Euh, kiñ ci tuumaal di ko tudd sa turandoo la. waaw euh, bokk itam ci nguur gi ndax magam la yàlla dogal ñu dénk ko réew mi kon jege na. Mhm. Euh, li tax laaj boobu ma di la ko indi ba noppi formé laaj bi noonu maanaam tëggee ko noonu. Mhm. mooy ñaare loolu dafa mel ne kilifa falu. ànd ak i mbokkam yàgg naa indi ay résultat mhm. waaye itam yàgg naa indi ay jafe-jafe. lu mel nii bu amee ban taxawaay lañ ci war a am. taxawaay bi ñu ci am rek mooy xam nga nit ku ñuul daf dul démissionné. Mm-hmm. bëriwuñ mm-hmm. kenn laa ko mos a dégg. Mm-hmm. ministre boobu santoon Seck ci dëkk booru Mbaaw. waaw waaw uh, defe naa Ablaye Seck xaw ma. jeex na waaw kenn dutu ko fàtte. waaye moomu du naka mukk. waaw. waaye woowu. Mm. du kon da bëgg a wax ne moom Alioune Sall mii dafa waroon a démissionné. waaw bu ñu ne laa yaa def naa ngam. Mm. ginnaaw sa sa sa sa sa mag. Mm. wala sa mbokk. yaa ngi nekk ak moom ñu la yaa yaa def naa ngam. dellu ginnaaw ndànk. Mhm. na ñëw leen seet. waaw dana tax mbir yi gën a leer te da ko gën a mettre à l'aise itam. jeex na. Mhm. jeex na. Mhm. waaye su fekkee dañ naan doo doo démissionné nekk nee nañ ma doo démissionné ak nangam ak nangam. tegal sa sa démission ci taabal ji. waaw ñu ñu maanaam ñu lañ bat la boo seetee. wecc la boo seetee dellu si. boo seetul nag dem tëddi ni gaa yi rek. est-ce que fekkee loo war a tëddi la. parce que mbir mi itam nag sëñ Mbàkke. ginnaaw ñun tànqaguñu dara. waaw. tànqaguñu déedéet rootaguñu paan mhm. Mhm. <laughs> coow li na kur waaw pétrole génn gudde ba bëgg xam ñaata lañ ci perte ak mhm. ñaata lañ ci am ak loolu tam xanaa nag tuuti kon mu xaw a teel kii maan la kii la tuuti kon mu xaw a teel kii ba xam ne nanga <laughs> nangam pourcent lañ ci am buñ ko defee dañ ko perte nii perte nañ ci nangami junniy milliards te loolu ah te tànqaguñu maa ngi wax ci waxtaanu fajar yi ndaw ku ndaa yi doon xeex mooste bayaguñ ba noppi mhm. di xeex ci waajaa ngay dawal oto ba te day jeexal gasoil bi mhm. Mhm. loolu rek la de tànqagunu daal ñu defaguñu dara dëgg la waaw am na solo am na solo oustaz njàngat mu am solo nga ci indi moo xam ne itam askan wi danañ xam ne euh, li nga wax noonu wax la joo xamante ne waxi kuy defar la te wax la joo xam ne it am na solo ci pénc mi ta loolu la ñuy xaar alhamdulilah ndax itam ku ñu tuumaal yitte joo mën a def ngir setal sab der war naa doon sa yitte jar na ko ngir sab der set lu mu jar rek war na laa jaral ngir loolu ngir sab der set ci lu ci lu wér jar na ko rawatina nag tuuma ju toll ne alal ju réew mépp bokk ñu di ko mébét ndax buñ tuddee pétrole ñun ñëpp ñu defaruwaat ndax jàpp gi ñu jàpp ne bu fi ballee moom ñu do ñu mel ne réew yi nga xam ne pétrole jariñ na leen te bañ a mel ne réew yi nga xam ne dañoo am pétrole ba noppi pétrole ba da xamuñu fu jaar ndax loolu am na ci àdduna bi waaw parce que dañ ci war a gis seen bopp mm-hmm. Mm-hmm. bu ñëwee mm-hmm. ñun ñëpp dañ ci war a gis suñu bopp te itam mën nañ ci gis suñu bopp ñun ñëpp nag war naa mën a wàññi ni ñuy jaayee war naa mën a wàññi ni ñuy luwee war naa wan yu bëri la war a mën a wàññi. Mhm. xam naa kenn kon duñ daq ko ab kooku yët la ko sa kër. Mhm. du déedéet. Mhm. waaye nag su fekkee dafa ñëw fekk suñu budget yi. fekk suñu euh, suñu koppar yi fi ñu koy jëlee. mu ñëw wàll si ci. ah war na war nañ fay war naa feeñ dëggantaan nag. dëgg la ba ba ñu def fi ay usines yu bëree baree bëri. usines yu nal mango. yu nal bisaab. yu nal keccax ak géej ak ñoom seen yooyu. su ko defee gon yi dem bitim réew ko nangam ak ki nangam. nit ñi ñibbisiwaat dëgg la. loolu politique bu leer moo koy def rek ñëpp nga gis ñu ñibbi si mm-hmm. te ñu ne ci bitim réew te bëgg a ñibbisi te yor ay métier kenn xamu nuñ toll mm-hmm. bu ñibbisee jamono ñooy am na solo waaw bu loolu amee na oustaz moom taxawaayam personnellement moom ñëw nañ ci mooy def yitte ci lépp luy setal ab deram waaw ku koy dimbali nga dimbali ko ci luy tax mu mën a siggi ci penc mi ndax tey ëllëg du añ du reer waaye bat naa sóoraale jimmi état ci boppam ndax buñ ko waxee bu mbir amee dafa am loo xamante ne mooy taxawaay yi mu ci war a am mhm. ba ca gën a rëy euh, am na ci démb wala bokk na ci gën a rëy mooy procureur de la république ci boppam génn mhm. janoo ak presse bi wax ci yëf yi joxoñ ab barab boo xam ne ne képp koo xam ne am na ci information yu mu bëgg a joxe na dem dik bu demee joxe ko fa danañ ko déglu euh, ak yi nga xam ne moo ci aju loolu itam euh, ban jàngat nga ci def ndax dangaa jàpp ne loolu doy na ci wala ñoom it seen loxo mënoon naa gën a diis. waaw jërëjëf ñoo ngi ñoo ngi jaajëfal procureur waaye. waaw Serigne Bassirou Gueye. Serigne Bassirou <laughs> waaye Serigne Mbacké. Hmm. ku am nangam yóbbul ma ko barab sàngam. Hmm. déedéet. Hmm. yow mi nga xam ne yaay enquête. yaay procureur ci lépp sa loxo lañ koy teg. yow yaa war a def say. say gëstu. Mm-hmm. ba xam ne effectivement affaire bi am na. Mm-hmm. wala li ngeen ndox dara amu ci. Mm-hmm. rek. te nun nag sunu sunuy attekat moo xaar la ko. Mm. wóolootuñu leen. suñuy jàngalekat. wóolootuñu leen wóolootuñu leen. suñuy fajkat. wóolootuñu leen wóolootuñu leen. réew moo xam ne ñett yi wóolootuñu leen. fu njëpp. waaw moom réew euh, samp fa dara ba mu samp dana jafe. te attekat moo war a def ba ñu wóolu ko. Mhm. ku ñu épingle ci benn benn benn rapport. Mhm. koo mën a doon. Mhm. attekat daa war a doon ko xam ne ki yow def naa la yow mii kaay tudd fii. ak koo mën a doon nag. koo mën a doon effectivement. waaw. waaye su fekkee léeg-léeg. ñu gis ñaar yu niroo. ñaar yu niroo. kii dañu yey xolli gerte mhm. da koy tojog loxoom mhm. kee jël ab battu di ko dóor ci gerte bi mhm. ku ci ne xolli na gerte nga ne kii ni nga xollee baaxut yow ni nga xollee baax na danga nu jaaxal moom daal bu ñu ne kii dafa def dafa lekk sunu gafak ak réew nu yëg ne lekk na suñu gafak ak réew nun ñëpp nu yëg benn mu fay nu lam jëloon mbaa mu dem tëdd ca kaso jamono ñooy léegi attekat nun lay def ba ñun ñëpp nu wóolu ko mhm. la ko mooy soo waxee ba noppi ñëpp ne àccam mhm. Mhm. lu rek lay tekki dëgg ko defee kii atte na def noonu kii faj na def noonu kii jàngale na def noonu bu nu wóoloonte rek réew bi baaxaat waaye li fekk wóoloonte wuñu nag fii rek lay mujj attekat moom ci boppam duñ wax ne ñu la wóolu déedéet day def luñ ko wóolu la mooy def mooy def lu tax ñu wóolu moom mooy def tax ñu wóolu ko ndeysaan mooy kon su fekkee dañoo ne ci mbir di ko càmbar dañ lay bàyyi yow am nga sañ-sañ am nga liberté koo bëgg woo nga woo ko mhm. ah woo mhm. bëgg laaj nga laaj ko mhm. ba ba ñëpp xam ne ay liiwén yoon yu mu jaar yoon wi la su ko defee ñun noppalu mu noppalu jàmm na ñooy ci penc mi waaw jàmm na ñooy ci pénc mi oustaz doon bu boobaa nag lu ama am solo loo xamante ne nii dana euh, jig réew mi te itam dana tegu ci yoon Euh, ah, leneen li ma ciy teg te du génn loolu it mooy suñ taxawaay ñun Sénégal yi mhm. ci boo ñu xaajee ay xaaj ci pénc mi mhm. am ci taxawaay boo xamante ne opposition ci boppam ñoo koy taxawee mhm. ak euh, taxawaay boo xamante ne citoyen lambda bi nga xam ne moom duggut ci wàllu politique moo koy taxawee am na woote lu jëm ci ay mars nañ wàcc ci télé bi euh, nañ génn ci mbedd mi nañu yëngal ndax am na ci loo xam ne fu laa koy faj ak faayda loolu ban message nga ciy joxe waaw loo am solo la am pénc moom ñaari ko am loo naqari mm. suñuy luwaa daa maye. nga dem ci penc moo xam ne dama am lu ma naqari. Mm-hmm. ko defee ku la fekk ne lu la naqari. Mm-hmm. nga wax ko lii la naqari. Mm-hmm. moom te loolu nag bañ a nekk par parloo. far baax na. waaw waaye par parloo dañ koy tere. dëgg la dëgg la sëñ Mbàkke. Mm. ki yàlla yónni woon ci noonu. sallallahu alayhi wa sallam. dafa am ku mës a jël yëfi jaambur. buñ jëlee yëfi jaambur. Mm. am kuñ délégué ne ko demal waxtaan ak procureur. Mhm. mu yónent bi. c'est. demal waxtaan ak procureur. waaw intervention. inter waaw. <laughs> ndax kii jël. Hmm. daggub loxo moom gàcc la ci arab bi ba yomal xiyam. Mhm. Mhm. léegi nag demal waxtaan ak moom. Hmm. bu jaree fay nu fay. Hmm. bu jaree ko suñu ko si. suñu mbàkk. ñu tànn kiñ yaakaar ne. mooy kooku suy wax rek yónent bi ne ay ci. ndax baayam. soppeeb yonent bi la mhm. moom rawi noppi mhm. Mhm. ba mu ñëwee di nakk nakkal di nakk nakkal procureur ne ko waxal li ngay wax mu leer mu ne ko dafa am ci famille ku ñu wax maxzum maxzuma wala famille maxzum ya dafa am ak càcc gu fa xew koo xam ne daal ci famille bu ñu naw la bokk ci noobul yi ci noobul yi la bokk <laughs> dignitaires yi kilifa yi waaw bàyyim ministre la. est-ce waaw najaayam gouverneur la. est-ce que waaw ah, nangam nangam. Eh, léegi nag. Hmm. jël na. Hmm. te dagg loxoom gàcce la ci ñun ba faw hmm. lu bëggoon waxtaan yow ñu baal ko ten fay. suñu mbàkke avant procureur di ko di ko tontu. daf ne bilaal noddal. ndeysaan ñëw. waaw nañ woo presse bi ñëw leen. waaw ñëw leen fekkee li may bëgg a tontu. laa akbar allahu akbar démb daal léeg-léeg mu niroog tey lool ci dox yi. benn la mbàkk moo tax mën ko. wallaay ba mu wooyee Bilal. bi Bilal noonu dañ jàkk ci fees dell. Mm-hmm. mu ne leen avant muy def mu def benn benn bo mm-hmm. mu ne leen ñi leen ñi leen jiitu. Mm-hmm. la taxoon penc ma di yàqu. Mm. ñu alku mm. ku liggéey doo jot sa àq. Mm. nangam ak nangam. lii doo nga la woon. mooy ku bokk ci yax bu rëy hmm. ñu ne noobal nga hmm. boo sàccee mucc hmm. ku bokkul ci yax bi nag xanaa néew doole ñoom seen yooyu boo sàccee ñu teg àtt bi ci sa loxo daañu leen way mullaay giñ naa ci yàlla Fatima mii di sama caat mii sëñ Mbàkke mu ne Fatima mii di sama caat mii bu fekkoon càcc gi ci loxoom la wàcc ma dagg loxoom jàmm na ñooyu waaw ñëpp di koy wóolu nag. Mhm. daal xam ne kon procureur mii yoon yu mu jaar nii wii la mu jeex tàkk. Mhm. donc penc mi daal. waaw noonu fexe ba àttekat yi. Mhm. dellu si waat ñu wóoluwaat leen. li tax ñu wóolu leen. ci ñoom lay jóge jàmm na ñooy ñu noppalu ñu noppalu. ñun ñëpp ñu bokk noppalu. dëgg la. jërëjëf dëgg la am na solo oustaz loolu dana doon loo xamante ni nii dana yaatu lool tey it jàmm moo ciy mujj. waaw ndax it pétrole léeg ñu ne moom day daa mel ne daa ànd ak coow. ndax bari na réew yoo xamante ne euh, bu fitna amee itam pétrole da koy indi euh, bu nga xamante ne daa mel ne euh, tubaab bi la teg bët ak li la teg bët ci bitim réew lépp léeg-léeg ñu bëgg a fénqale ba ñuy xëccoo ko xeex ñu jaar ci gannaaw ñoom def la ñuy def yóbbu am na daal yeneen i intérêt yu baree bari yu ma dégg yoo xam ne nekk na ci. xam nga ndox muy juri milliard. Mhm. <laughs> waxuñu benn milliard. Mhm. waxuñu fukk. Mhm. xanaa mën a wax mën na ci amee junniy milliard. Mhm. ndox kat suñu wàgg xam nga ne. fu cim réew. waaw buñ deful attention. waaw ah, yéen jóg bala ñu koo tànk. waaw bu demal Iraq gee tey rek. nga ne kur gaañaa ngay lu rek la. dëgg la dëgg la. yàlla nu yàlla dimbale ba loolu baañ fi am nag. ñu yëg ne daal suñu yëfa nun ñëpp noo ko bokk. nu am ci ngor ah ñu am ci ngor am ci doylu te xam ne ku tànqoon lépp naa nit bu faatu jotee doo yóbbu lii dara tey ah, waaw wallaay lépp lépp fi nga koy bàyyi lépp fi nga koy bàyyi allahu akbar allahu loo ci mën jëlee fi nga koy bàyyi mm-hmm. tey bis boo duggee biir suuf da nga koy layoo ba pare sénégalais yëpp taxaw. waaw kenn ku nekk laaj la wàllam ci li jël dana bari lool. te <laughs> dana métti wallaay wallaay wallaay rek mhm. moytu lool. Mhm. te bàyyi xel bis boobu. Mhm. waaw te it suñu mbàkkee adduna ka ñàkk solo. ak ka ñàkk solo. waaw ministre yaa ngi fiy jóge député yaa ngi fiy jóge hmm. gouverneur yaa ngi fiy jóge ilimaan yeeg ustaas yi hmm. bët bu set ñu ne kenn jóge na fi dëgg la de dëgg la de ku fégal dem ku ku fégal dem kon bari na yooyu jëru ko daal jëru ko macha allah am na ustaas jërëjëf mi ngi noonu ci coow lu bari lool nga xam ne moo ci am xam naa dañuy xool rek ba xam nu wàlleen di mujjee ki gëtam ba noppi rafet ci njort nag te jàpp ne rek jàmm moo ciy mujj alhamdulilah waaye waaye jërëjëf ustaas ngir jàmm mujj ci nag kenn ku nekk nañ ko wax li nga xam ne moo war a nekk ñu war a jubbanti ñu jubbanti leen te fexe rek bu amee ku ci gañee na doon Sénégal rek tubaarkàlla <laughs> te bañ ci par parloo ji macha allah am na solo ci jamono jooju ñuy waxtaane pétrole bi jamono jooju it ci la ñuy dialogue ci réew mi mhm. am na sax ñu ne waaw dialogue bi moom tombé na di lu xew ndax ca ay bis gële lañ ko ubbi woon mhm. waaye ba fii may waxee yow it ñu ngi ci eh, dajale li nga xamante ne mooy kilifa yi réew mi am mhm. ngir ñuy waxtaane mbirum réew mi noo jàngate jaloog boobu waaw jërëjëf amoon nañ fi ñu tuddee assise nationale mel ni dialogue bi ñëw fi bii moo ñaareel yoonam fekkee dialogue mooy waxtaan hmm. fekkee baatu dialogue hmm. mooy tekki waxtaan hmm. wala mooy tekki diisoo dafa doon lu munti ñàkk am réew bu ko kenn yore ñu ne ko yaay njiitum réew mi bu déparé dem moom dong mën naa am lu dem dëgg la tàllal loxoom ñépp ñu ànd boole suñuy xalaat jox ko mu tënk te defal ko loolay li doxalum réew dëgg la waaye nag jël décision du mën a ñàkk. waaw fa isa azamta. mënut hmm. a ñàkk de. Hmm. waaw kilifa day décider. waaw. waaw kilifa it bu décider. Hmm. bu delloo ginnaaw. dootul décider lu lu jàkk. kon balaa décider war naa waxtaan waaye bu ko jël décision jotee na ko jël te bañ cee delloo ginnaaw. jeex na parce que saa boo décider. boo delloo ginnaaw. yàq nga lu bare bari ci ay at. moo tax bala ngay jël décision. wa shaawirhum fil amr mm-hmm. fa izaa azamta door a ñëw mm-hmm. lu am solo la dangay la dëgg waxtaan mm-hmm. ba jël di son jot nga ne ko caq jël ko lool nag lu métti metti bu teg ci suuf jël ko rek jël ko rek boo ca noppee boo ko defaatee defaat ko rek ñëpp ne ay lii yoon mi ngi nii waaye boo jëlee ñu ne wóob nga teg nga jëlaat ñu ne wóob nga teg duutoo jëlee ci dara donc loolu loolu la yunt bi lu ko alxuraan jàngalool wa shawirhum fil amr waxtaanal ak gars yi bañ nag ma ne nag fa izaa azamta nag fa tawakkal alallah soo jëlee décision bi nag wéerul ci yàlla te def ko rek waaw lu lu lu lu loo ci wéer wéer wéer boo doxee lu seen gars yi la topp donc dialogue bi bu fekkee loolu la baax na nañ ca woon ak ñëpp ñëpp ni ñu ko defoon ci assises nationale yi te buñ ci noppee la ci tukkee ñu def ko programme doxale ko na ko noonu ñoo na bëggee mm-hmm. ndax waa jàng njàng mi dañuy ñëw mm-hmm. ah mm-hmm. waa sport ba peut dana ñëw dëgg la waa waa culture dinañ ñëw waa diine dinañ ñëw waa daara dinañ ñëw maanaam mën nga de kon waaw moom kay seen naa fa ñu bari voilà ñëppay ñëw bari ca woote ba waaw ñëppay ñëw tënk la nga xam ne moom moo fi nekk kenn ku nekk wax ci ci tàmbali ba buñ duggee ci plénière yeeg Euh, atelier yi mhm. ñu ñu ñu togg fa yooyu ba mu ñor xom ñu tegal ko réew mi jàmm na ñooy ñu dem mhm. Mhm. waaw muy lu am solo oustaz jëmmi dialogue boobu ak itam jamono juñ ko mën di def daa mel ne baax na waaye nag léeg ñu ne dialogue ci am réew yi bu naa am day fekk daa am lu euh, am luy maanaam lu doy waar lu xew ñàkk indi ak déggoo ba ñu wax ne kat dañoo war a dialogue waaye ginnaaw bi ñu jub élection dialogue boobu amut bi ñu ñoppee ci élection ba war a doxal ñu indi ko ci jamono ji wala moom jamono jum ñëwee rek baax na waaw jamono jum ñëwee baax na moom daal lañ ca bëggut mooy woola ca nga ne du ma dem hmm. moom baaxut demal wuy waaw hmm. parce que politicien hmm. dafa am lu koy may ay point ak lu koy xañ li koy xañ ay point mooy fi ko ñëpp yi séentu te ñëwut day naqaree layal donc avant pendant après moom daal heure bu ñu ko wootee rek baax na léegi demal wax la nga la nga xam bu la wax loolu loo xamul boo ci noppee média yaa ngi fi daañu xam la nga waxoon ak na nga fa teewe rek mhm. donc moom heure ñëw rek baax na mhm. la gënoon la dàqoon nag te gën mooy avant élection yi mu amoon mhm. waaw ñu woote ko waxtaanee mbir mi waaw ñëpp waxtaan ci nan la ñuy def ba ñëpp jot seeni i carte nan la ñuy def ba ñëpp mën a watee mhm. nan la ñuy def ba lépp leer ci penc bi mhm. ñu def ko jàmm na ñooyu mhm. waaw am na solo am na solo oustaz jërëjëf ci dialogue boobu ak taxawaay yu am solo yi nga xam ne moo ci am ni nga ko waxee am na solo lool te yaatu lool ci xibaaru daara ji oustaz dama ciy toftal beneen tomb boo xamante ne moom luy am ci société bi la muy accident yi euh, moom de ba léegi jeexagut oustaz ay bis boo dugg euh, dégg ci bu yéeme mbir mi di gën di yokk rek lan mooy pexe ci loolu pexe mooy penc mi dafa am nu ñu wax ne noonu la ñuy dawale oto kii dawal oto day wér oto bi ñuy dawal day wér kii dawal day wér oto bi ñuy dawal day wér oto dawal day wér wérum nit da laa gën a comprendre oto bi moom nu muy wéree dañuy wax ne dañu def benn gëstu mhm. gis ne téeméeri oto yoo gis Sénégal mhm. quarante amuñu visite technique. Mhm. quarante yi wéruñu. Mhm. maanaam xam nga suñu mbàkkee. Mhm. dafa am visite car ñu tuddee visite technique. waaw waaw. loolu mooy wane wér gi yaramu oto bi. mooy kayit yu wane ne oto bi tawatut oto bu wér la. waaw ci ñu ne. téeméeri oto yu ne. ñun fukk yi wéruñu. ba pare te ñi ngi daw ci kaw tali bi te ñi ngi daw ci bi. ci maanaam boobu. te koo ci taxawal ne ko ana sa visite technique. mu génne ko. am na ñooñ hmm. oto ba day du wér léeg-léeg gis kuy dawal oto bu ko mag hmm. gis nga sëñ Mbàkke hmm. jamono ñoom Cheikh Bekkaay door dem Italie ngalam la ci rek ñu def kenn ci kees indi dafa accidenté est-ce que allahu akbar ngalam ci rek ñu def kenn ci kees li dafa accidenté xam nga waa Italie lu ñu def dañu ne kon permis yi ñi yor dañ ko dañ dañu dañuy dawal te ñoo dawal nangu permis yooyee léegi képp koo xam ne ki da nga faa bëgg a dawal seen permis ngay am mhm. ñoom rek la nañ ko waaw jeex na accident bu jeexu tabala ko kenn am am fu mu jaar lool bañ xam ne mérito ko ñu jox ko ko jeex na mhm. mais fii nit mën naa toog këram Pape mhm. Dieye mii bu neexoon mu am fii mu toog est amu ko sax boo demee de ce que amu ko sax la <laughs> <laughs> <laughs> léegi su fekkee ne dañu ne réew moo xam ne comme neex ñu jaay la permis hmm. nationalité boo bëggee ñu jaay la ko. Hmm. extrait boo bëggee ñu jaay la ko léegi fu ñu jëm. moom kay kii maan dëgg la. léegi nag waa ji nga xam ne moom mënut a dawal ba noppi yor permis hmm. léegi oto bu mu yor mu daanu. loolu hmm. rek la. waa ji mënut dawal. ki mënut a dawal na ñu jox ko permis bu gisee lu mu xamul rek. dëgg la dëgg la ay fitna rek lay indi ci penc mi bu boobaa. loolu benn la. ba ci teg damay saa su ñun suñu assurance bii. Hmm. daanaka am lu ñu njëriñ. ndax maag yow ndax lan oustaz. dagg assurance daw fukki weer ak ñaar laalu hmm. kenn kenn laalu la. Hmm. nga daggaat. waaw ah. moom kay fu mu jeexee nga mu de. te li nga daggoon lu ñu toll nga daggee. loolu yënuwut maanaa. moom kay même bu la beneen oto fekkoon sax yàqal la bala laa assurance fay ñëpp sonn. li do li xalaat mën a nangu. mooy sëñ Mbàkke si mii day door a mën a dawal. ñu teg la assurance bu seer. ndax xalaat ne da ngay mbëkk ñu lay mbëkk waaw parce que danger danger nga waaw loolu lañ lay wax danger nga lañ lay wax nga dawal fukki weer ñaar mbëkkoo kenn mhm. booy daggewaat assurance dañ koy diviser par quatre dindi benn ba mhm. trois yi ngay dagg léegi mhm. soo ko defaatee ñu diviser deux yi ngay fay léegi da ngay dem ba suñ mbekk si la at mi mu doon fay quatre cent mille léegi vingt cinq mille lay fay dëgg la kee di mbëkkaate nag liñ la wàññil ñu yokkal ko moom loolu la sunu sunu sunu góor yàlla yii di taxaw ci tali bi. Hmm. taxaw ci tali bi bu ci kenn nangoo ger. Hmm. maanaam nga def lu dul yoon jox ko dara mu bàyyi la nga dem. Hmm. ñoom ñëpp lay topp. ñu am am fitu ñeme leen léegi. am fitu duñ leen faale léegi. ndax am na ci ñoom kuñ teg ci loxoom ma nangu. loolu benn ci. ba ci teg mooy oto boo xam ne bii. da 1964. Mhm. la nekkoon ci télé bi daw bi fi ñu toog. Mhm. man gis naa ko. Mhm. oto boo xam ne ki koy dawal oto bee ko mag. oto yu ñor yooyu boo ne ko ku ma ko nañ ba kii maag yow benn accident boo xam ne bi oto bi ni mu lemaaroo nii. wallaay wallaay bu doon oto bu mbees du ko def. dëgg la moom kay ñaaree lu ci daal rek oto bi moxoñoo. la ci tege mooy tubaab bi defaratu léegi oto weñ. lu muy defar. <laughs> xaw ma affaire yu aluminium la. aluminium waaw waaw xott yi de oyof na lool. loolu la. dana briller dana seer waaye dëgëraay gi des na. léegi oto bu accidenté suñu bàkkee. ca mbooy ga foofu lañ koy bàyyi. Mhm. soxlaatuñ ko. Mhm. parce que mënuñ koo defar ndax day day moxoñoo. dëgg la dëgg la. donc damaa bëgg xam ne li fi jëlee accident la ñu préparé gul pour mu jóg mhm. tey ñun. waaw loolu dañ koy wax rek. am nañu yi def nañu nangam. permis à point. danañu def lii danañ changer carte grise waaw. attaque bi lu mu def. dara defu dara terme bi defu dara. <laughs> déedéet benn defu ci dara. waaw <laughs> moo taxit accident yi di gën di bari oustaz faatu gi di gën di bari te loolu day bëgg a yàgg. te pareeguñ pour dindi. yu bari yoo ci wax bañ ko dalee wax yàgg na waaye daal ay euh, jël ay ndogal yu tegu yoo xamante ne yu dëgër lay doon yu régler problème yooyu ba nëgë ni euh, néew na luñ koy gis. ci penc lu rek de. Mm-hmm. néew na luñ koy gis. Mm-hmm. oto bi bu fekkee waa ji da koy dawal te amul permis mm-hmm. buñ la jàppee. war nañu leer ñëpp ne kii dafa am permis <laughs> waaye tey su fekkee da nga da ngaa dawal te yoroo permis daa mel ne nit kay euh, façon bu ne rek am na fiitu dawal ndax nuñ ko jàppee man na caa génn parce que waaw jeex na waaw buñ la jàppee bu fekkee da bokk ci politiciens yi ñu bàyyi la nga génn mhm. tey bu fekkee ci sëriñ si nga bokk <laughs> la am nga cëb sëriñ. oustaz foofu xaw ngaa kii tuuti de. xaw kon bu fekkee sëriñ si nga bokk. ñu ñu bàyyi nga génn. waaw da ngaa rocce sa poche it. waaw ñu bàyyi nga génn. maanaam kon li xóor goo mën a def. waaw lum rëy rëy. lum rëy rëy. Mhm. ba ci am benn da nga ci génn. est-ce que est-ce que. affaire bi nag bu dee doxee noonu de ah. bu dee doxee noonu fii rek lay rek. waaw malaaka mi jël oto yi di jël mhm. nit ñi di jël mhm. ah métti na de mhm. waaye daal li ko fi jëlee moom man gisaguma benn programme bu fi jëlee yëf dëgg la man gisaguma ko dëgg la masha allah ah, am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf ci tomb boobu ak noonu nga xamante ne noonu nga ci ñëwee mu dellu si waat ci wàllu accident yi mm, taxawaay yi nga xamante ne moom lañ ci am ci société bi yëpp te it mu mat a jàngat lool ndax mi ngi bëgg a bari te bu ñu rappelé woo ci at yee ñu génn lu mel ne euh, bateau la defe naa buñ ko fàttee rek euh, yu baree bari mën nañ caa dem waaye buñ ko fàttalikoo ndax lu toll noonu ci suñu réew mii ci àdduna bi sax hmm. lim fi am bëriwut wala boog mi ngi door a am kon oustaz loolu waruñ koo fàtte bay si sars te kat juróom benn téeméeri nit lañ wax ne mhm. ci 2018 bii ñu génn faatu nañ ci accident laa ilaha illallah léegi nag ña ca yàqoo ba dootuñu liggéey waaw ñii dund te faatu waaw mënatuñu liggéey ñi ñu dagg ci ñoom ay cër o oh. kenn xamu nu mu toll mhm. Mhm. loolu benn la mhm. bu ñaaral benn sëñ Mbàkke bi ñu amee indépendance ba léegi suñ tali bi jëm Thiès Dakar yëg nga fi mu fi yokk ko ci yaatuwaay te jamono jooju nga xam ne ñi ngi tëli tëli bi ku dem téeméeri oto amaguta ndeysaan léegi oto yokk tëli bi moom toll ni mu toll loolu itam am bokk na ci liy jur yooyu tëli boo xam ne booy doublé. Hmm. yaa ngi jàkkaarloo ki nga yaa ngi jàkkaarloo oto. Hmm. booy doublé nag yaa ngi jàkkaarloo oto. waaw waaw. loolu itam na ci li koy li koy sabab. dëgg la la ca tege mooy oto bu am ñun ci senegal Mbàkke. Hmm. bu ñëw ñu koy modifié. oto bu ñu mën a am mu jóge bitim réew. bu ñëw ñu modifié ko. dëgg la de bu dee bus la yoon wi doon jàll ñu wutal ko ay nan lañ koy tuddee sax. tra traversé waaw yooyu bu defee nit ñi. di toog loolu war am oto. waaw. gis nga bus yi ñëw. na waar de boo dem bitim réew yow dem nga màkk. Mhm. foofu du am dara. déedéet soo sonnee da nga jóg dox. ci dox ci diggante bi dox ci diggante bi. mën nañoo toogaat. Mhm. ñu def ay ay chaise. wallaay wallaay. ñun koy oustaz nag moom xam naa ñu spécial lañ daal. waaw ba pare bëgg oto bi am jàmm nga mucc mu mucc. bu dee bus yu mag yi. Mhm. xam nga ñoom seen seen seen seen seen i bagage waaw ci koll yi lañ koy def waaw waaw duy ci koll yi du yaat ci porte bagage ba duy ko ba nga xam ne li ci kaw waaw muy ëpp oto bi mhm. nga ci ton nga xam ne poids bi mu yenu léegi attanatu ko moom oto bu ko benn booy yoree boo ko wañaaree fenn buy mhm. delloo si rek mhm. ñu dem dëgg la parce que nag wax dëgg yàlla ki defar oto waajalewu ko woon noonu ko très bien waaw ah muy lu garaaw bu ñu ñu ma di modifier la transport bi ci boppam kon dafa bokk ci cause yi ñu war a waxtaanee ndax moytandi ko accident bi moom kay moom kay war naa dem ci ba moom waaw waaw transport bi ñu waxtaane ko ndax itam moom it euh, daa mel ne day gën di eh, am na côté yoo xam ne dañ naan waaw ndax gis naa ay bus yu bees yoo xamante ne ñi ngi ñëw yu tegu ci yoon lu mel ne tey Sénégal dem dikk wala yeneen ak yeneen mais euh, côté privé bi daa mel ni mat naa gën a waxtaanee gën koo taxawee ndax xam nga fii mm-hmm. dañu wax ne dafa am taxi mm-hmm. foofu mm-hmm. war jar naa waxtaane kan moo war a dawal taxi ban taxi war a daw bu dee kalandoo Mm-hmm. lan mooy kalandoo mm-hmm. kar moo ko sañ a def lu tax mu koy def mm-hmm. waaye bu fekkee moo ruq jëm mu jóg sañ ngaa wut ci teg ci tali bi bu amee këyit bu amul ci këyit bu bu ak bu bu sàmmoon teg yoon bu ko sàmmoonte wut rek dëgg la nga teg ci tali bi léegi su boobaa loolu day mu jàgg anarchie mooy am lu neex waaye teg ci tëlim mm-hmm. léeg-léeg benn oto romb la boo xam ne bi waa ji dawal mm. mooy bokk port bi nii la ko may di waaw am na de moom da koy téye déedéet wallaay wallaay <laughs> bu koy taal taqale ay fil mu tàkk te kat su suñ mbàkk si la doon wax ci loolu <laughs> waa ji contre yow waaw kay kim yab bay bon nga ne tekk rek waaye loolu moom du looy wax lu mu def nag muñal jeex na muy dawal dawal bu normalu di njëkkante di double fu mu wërta double la ci tege mooy fi nekk nii tëli buñ defar ci dëkk bi mm-hmm. buñ ko paree tey tey tey mm-hmm. bu ngoon nañu gaare ko waaw biir dëkk bi moom looloo ci rawati waaw embouteillage bu bari oustaz kon léegi bu ñu tuxoo ci euh, accident yi ñëw ci mm, façon circulation bi ci dëkk bi da ngay gis ne kaw tëli bi mooy parking yi jeex na te loolu kenn parewuñ pour dindi ko encore waaw boo demeon tey fu mel ne Pikine wala Géeja waaye tëli bees yooyu ñu defar tëli bi bu nekkoon deux voies la léegi fi mu ne benn voie la benn bi ci des yëpp moom ay oto lañ fa gaaree ba mu fees del jeex na mhm. te soo koy wax yow mu fi nekk ni mhm. waa ji dox ah vraiment wax na dëgg ah mhm. déedéet day xam ne waaye dimbale nu waa dañu daal suñu doole mm-hmm. fekk na du noonu mm-hmm. ñun li ñu war a defal ci penc bi xam na xawma dialogue bi lu ñu ci wax de mm-hmm. waaye war naa wax ci yooyu war nañ cee wax ñu dindi ko mu seet wecc waaw lu ci lan lu ci nekk leer nañ féex ñu am jàmm boo génne ci bitiyam waa ji dawal ab camion ba mu ba bam paan mu bàyyi ko ci kaw tali bi dafa am lu war a def oto boobu fi mu ne fi day rek fi nekk ni autoroute bii nii waaw boo fi paane doo am quinze minutes te kenn ñëwut balaa fukki minutes te juróom oto ne dara rek fi nga taxaw mhm. ne lu xew nangam mhm. nangam ñoo fayal quinze mille mhm. ñaak oto boo yóbbu mais bu dee ci penc mi nekk waaju waaju gaare fenn paan fa ki la njëkk romb ca takk der moo waroon na taxaw wàcc moom bàyyi oto di dem mu taxaw fa seet nan lay régler mbir yi ak moom ci ci ci wàllu woowu su dul loolu. Hmm. ni tey daw daw ban ci kaw mu ku hmm. ñu ne dafa dafa dal ci kaw kii bu paano oto bu paano dëgg la dëgg la mais war nañ ko faa mën a jëlee. Hmm. yàlla nu yàlla dimbali. amiin yaa rabbal aalamiin amiin loolu yëpp dellu si waat kon ci suñu ay comportement euh, ñun sénégalais yi euh, taxawaay yi nga xam ne moom la ñu war a am suñ comportement yi daal mat naa xoolaat ndax itam jamono ngi dox waaye di dox ànd ak jamono ji itam baax na. baax na lool. waaye loolu. ay njiit koy def ci nit. Hmm. engagement politique bu leer nañ ay leader ay leader. <laughs> waaw yoo xam ne ci njub gi la ñuy nekk. Hmm, hmm, bu ko defee peuple bi fekk leen ci njub gi. dëgg la. soo xarale di sëñ Mbàkke saa ma jàngal la ko. boo ñëw ci penc ma. def ne ama ah, man zalama. waaw. koo ci xam ne tooñ nga. danaa naa la sanctionné. ku def lu baax nag naa la neexal. jàmm na ñooy. ndeysaan. waaye bu fekkee kii def lu baax kii def safaan ñoom ñëpp ñoo bokk yem kepp su boobaa comme neex def safaan parce que safaan daa neex. dëgg la. dëgg la am na solo oustaz jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal mbokk ñuy topp ci suñu jotaay bi di al bidaaya oustaz dugg naa ngeen ci tomb yu am am solo euh, ci wàllu accident yi waaye ñëw itam ci suñu ay comportement ci suñu dundin li ñëpp bokk ñu xam ne ñëpp ko bokk dañ ko war a sàmm kenn ku nekk itam xam ne fi ay àqam yem fa la yosi moroomam tàmbule muy lu am solo jërëjëf oustaz euh, ëllëg ak jàmm mooy bis bi nga xam ne moom lañ jagleel maye deret ci àdduna si yëpp mhm. loolu nekk geste euh, boo xamante ne euh, léegi rek maa ngi ciy waxtaan ak waa alu docteur ñoom soxna Ndey Xadi mhm. lu capital la te itam nit ki war na ko bëgg lool ndax deret moom du jaay du loo ab usine di defar mhm. te léeg-léeg ni toll foo xam ne da koy soxla te nit ak ko war a may mhm. loolu itam ban message nga ci yor waaw loolu de suñu mbàkk lu am solo la mhm. suñu borom dafa dogal deret kenn mënu ko cee wóotu te soo mayee ba noppi balaa balaa balaa ngay am trent minutes jotaat la nga amoon nit di ko soxla bu fekkee fa mu ko soxlaa amu ko mën naa lor wala def yooyu dëgg la kon nun ñëpp war di taxaw ci wàllu googu di dem di maye ji deret loolu nag dañ ci yee aw xeet gis ci wàllu suñu école yii xaw ma nag kañ la ñu moom suñu école bi waaye ci wàllu école yii ci lañ waroon a former nit ba mu xam lan mooy maye deret dëgg la ci jàkka yeeg yi ñu former ci bañ xam lan mooy maye deret ba bu jotee dañ lay may ba nga ne doone sukk su boobaa ki nga xam ne dafa feebar ba soxla ko dañuy dem rek jël jox ko mhm. te itam suñ su fekkoon nit daa maye deret saa buñ sauvé nit ci deret rek yow ci ñu sauvé kooku ca nga bokk mhm. waaw mhm. fa a annama ahya naas jamia dëgg la wa man ahyaha mooy kon saa boo xam ne maye nga deret ñu wallu ca kenn yow yaa bokk ñu ko wallu kon nag loolu lu baax a baax la jaamu yàlla gu rëy rëy la du dëgg te it maye dara danañ ci jàngale na. Aïssatou Gaye ci Wakam la nekk madame Fall nekk fële.